jàng xul huwallaahu ahad ñaar fukki yoon mel na ni ku moomoon àdduna ak li ci biiram dundale ko ci yoonu yàlla mel na ni it ku jàng tawraat injiil zabuur furxaan te buy génn àdduna day mel ni bis ba mu juddoo woon ci ñàkki bàkkaar mbokk yi ku ci bëgg yeneen i leeral nga dellu ci xurratu bu sëriñ Suwaybu bu Mbàkke page 148 9. ngeen jot suñu vidéo nag foo leen toll si biir réew mi wala si bi réew da ngeen di abonné fii si Tawfekh Production ngeen mën a jot moo ne dugal nañ mën a xam nga